asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme nuñ ko safoo di ko defee di leen dalal sur la chaîne leader Dakar People tey nag ñu fas yéene ànd ak kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam si Cheikh Bocar Mané Cheikh Bocar Mané ñu ngi lay nuyu. waaw auzu <clears throat> wasalaatu wasalaamu ala saxfil mursalin wala xawla wala quwata illa billah al aliyul azim ginnaaw buñ sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp rawatina suñu mbokk soose di leen wax mbaajin mbandin koolu mooy laalu mbaalu jayla mbaalu tantu ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu ñu ñu seet si la pour am yow waxtaan laa ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari ci mbiru xam-xam question ba si njëkk rek Serigne Bokar Mané bëggoon nañ waxtaanee mbiram seet ndaxte daanaka mun nañ ne ku ne Serigne sunu xel day dem ci seet kon loolu bu ko defee mun nañ nee ni seet mooy buntab Serigne tey ji képp kuy askanale sa bopp Serigne rek te tële maskala bu ñu naan seet yaakaar naa ni kooku mënuñu ko woowee Serigne kon donc seet mun nañ nee dafa nekk lu ama am solo ci Serigne. Cheikh Bocar ne lan nga ñu mun a laay biir ci mbiram seet lan mooy dëggi-dëggi seet ana lan mooy njëriñal seet ci doomu aadama waaw alhamdulilah waaw bunt la boo xamante ni damay faral di wax ne mooy bunt ci wàllu ñaan yàlla doomu aadama lépp loo xamante ni ma ngi koy def wala mi ngi koy jublu balaa mu ciy dugg dina ko xollu mag ñi daan nañ ko def ci sëy balaa nga ciy dugg ñu xoll ko daan nañ ko def ci kër balaa nga ciy dugg ñu xoll ko daan nañ ko def ci ci bunt yu yaatu ci bërëbu liggéeykaay ak lu mu mënti doon moo tax képp ku ñëw fii bunt bi ñu lay njëkk laaj mooy defal xoolal la yaa xam yaa ngi ci réew mi wala yaa ngi ci réew dañ la seetal incha allah la seetalee seetal bi dañuy tegtal dañuy tegtal sarax bu ñu la wax defal wala mu tegtal ñu saafara boo xam ne di ko war a jëfandikoo te nit warul ñëw ci yow rek ngay làmbatu di ko jox mu sangu wala nga koy jox mu takk wala nga koy jox lu moo doon te loolu yëpp nga xam bunt bi nga war a jaar il faut nga seet ko moo tax seet seet ala kulli xaal mooy bunt bi nga xamante ni munta ñàkk balaa ngay jublu ci nit wala balaa ngay jublu ci dara il faut nga seet ko kon jàppal ne mooy bunt bi nga xamante ni mooy njëkk balaa nga ci dugg balaa may ku yëpp ku ñëw si ñun wala képp ku ñëwoo dañ la xoolal ba xam say mbir lu ci nekk ci gàllankoor ak lan moo si nekk loo xamante ni bu ñu fa jaaree say mbir dina gën a mën a yokk di nga di nga gën a mën a ci kanam kon jàppal ne seet moom mënut ñàkk sëriñ bi waaw. macha allah Cheikh Bocar Mané leeral yi am nga solo trop wéral nga ni mbirum seet dafa nekk lu ama am solo. comme yaakaar naa comme ni nga ko waxee doomu aadama bépp mbir bu muy dugg war na ko càmbar war na ko saytu donc seet dafa nekk bunt boo xam ne moo njëkk ci bépp jaamu yàlla boo xam ne mu ngi bëgg càmbar mbir suñu paree ci loolu sëriñ bi bëggoon nañ waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne jaamu yàlla yi dañuy faral di ko am mu nekk li nga xam ne da leen di gàllankoor yu si mel ni mbiram cat sëriñ bi guddi yuñ toll nii gis nañ cat dafa nekk nga xam ne dafa nekk gàllankoor bu ama am solo bu am doole bi nga xam ne mooy faral di indi loraange ci doomu aadama yi seen dundin ak seen nekkin ba tey jii mun nañ ne cat ku mu jàpp yaakaar naa day faral di tëj sa buntu donc mbiram cat buy faral di gàllankoor nit yi est-ce que nekkul ñàkkum kaaraange mooy li koy waral ci ci yaramu doomu aadama. waaw alhamdulilah liñ lay fay beneen yoon waaw loolu dama koy dugal ci mbirum musluwaay rek parce que euh, détail temps bi xaju fi mm-hmm. waaw li ëpp solo mooy dugg ci mbirum musluwaay musluwaay bunt la boo xamante ni ci la wàllu cat nekk ci la wàllu aar doomu jëmmi doomu aadama nekk parce que mooy bunt bi nga xamante ni bunt bu baax la ñu ngi ciy liggéey ay façon yu wutee am na gàllaaj goo xamante ni duñ koy liggéey mag ñi daan lañ ko liggéey ci bëy boo xamante ni dañuy jël benn téere takkal ko ko suñ ko takkale dañ koy bàyyi mu daw fanaan ci fi nga xam ne fa la bukk yi nekk wala fa la gaynde yi nekk incha allah ñu xëyee suba dañuy dem gis ko ne dara du ko jot nga jël téere boobu takkal ko nit maanaam musluwaay bunt doomu aadama su ko amul même bu amoon ay milliards dana see ci loxoom parce que bu nit jógee dal sa kaw jàpp la bu buñ la liggéeyee jàpp la bu la nit làmminoo wala mu cof la jàpp la ñun suñu musluwaay dafa lëmb ci wàllu cet ak bépp gàllankoor boo xamante ni am na sa nomba boo xam ne maa ngi ko ciy liggéey am na jaara boo xam ne maa ngi koy liggéey ci mbir musluwaay képp ku ko am dara mënu ci yow dara jàppal ne doomu aadama même ak lu mu mënta amu ci musluwaay amul lu ko musul rek musal musluwaay mooy musal mais boo fekkee amoon lu la musal kon jafe-jafe day ñëw bu buñ la bëtoo jàpp la buñ la cetoo jàpp la buñ la liggéeyee jàpp la kon jàppale doomu aadama dafa am musuwaa ci boppam waaw macha allah. macha allah Cheikh Bokar Mané leerali am na solo trop daanaka mbirum musuwaay dafa nekk tey jii lu ama am solo macha allah daanaka temps bi duñ ci may sax pour ñu mun ci gën a xóot naa bu ñu paree ci loolu sëriñ bi ñu waxtaanee mbiram musuwaay maanaam kaaraange te ñu laal mbiram ubbeeku ndaxte yaakaar naa. dafa nekk li nga xam ne jaamu yàlla yu bëri dañuy faral di ko soxla te képp ko xam Cheikh Bokar Mané xam ko suñu borom may na ko ci ay buntu yu baree baree baree macha allah. alhamdulilah wàllu ubbeeku damay faral di wax ne du ma ci weesu ne juróom-ñaari fan su ma la bëggee dimbale dëgg balaa juróom-ñaari fan yàlla bisam mboolem buntu wërsëg am nañ ci jaaro boo xam ne dañ koy liggéey boo xam ne képp ku ko am dootoo tàggali dootoo tàggali ko am am ñàkk dana la daw te yàlla dana la ubbi kon mbirum ubbeekaay alhamdulilah am nañ ci jaaro boo xam ne ñu ngi koy ciy liggéey jaaro bu jafe la mais bu képp kuñ ko liggéey tant que mi ngi sa loxo dootoo ñàkk am na ni si juróom-ñaari fan du ko weesu yàlla ubbi la sa mboole da ngaa nekkoon ci jafe-jafe wala da ngaa nekkoon ci ñàkk wala da ngaa am alal bëgg sa alal yokk wala da ngaa bëgg am alal goo xamante ni day jégg dayoo ñaari fan ñu taal seen mbir si loolu am ko ci koo xam ne jokkoo nañu ñun dañ la wax ñu koy liggéeyee suñ ko liggéeyee balaa juróom-ñaari fan yàlla dafa la jàmm kon bunt la boo xamante ne am na ci ay sangal duñ ciy liggéey bëri na ay façon waaye am na ñoo xamante ni toll nañ foo xamante li bëgg mooy am teraanga am ay kër am ay waruwaay am nangam am nangam kooku nag am na bu ñu wooyee dañ am yoon boo xam ne dañ ko ci teg suñ ko ci tegee incha allah balaa juróom-ñaari fan affaire am baax incha macha allah Cheikh Bokar Mané leerali am na solo trop xam naa bu ñu paree ci loolu tamit bëgg nañu waxtaanee lenn li nga xam ne dafa nekk benn gàllankoor boo xam ne day gàllankoor jaamu yàlla yu bëri muy mbiram rab sëriñ bi lan nga ñu mun a laaya biir ci mbiram rab waaw dafay jàpp doomu aadama ba nga xamante ni ñii teel am jëkkër ñii teel nañ am jabar ñii teel am doom ñii teel nañ yàqal nañ seen wàllu kàttanu sëy ñii daf leen def ay feebar duñ ànd ak seen sago ñii dañuy bëgg jëkkër mënuñ ko am kon képp koo xam ne contact nañ bunt buntu yooyu mu lim yooyu yëpp suñ ñëwee si ñun dana ko dimbale incha allah dana tàggalu ko ak moom am nañ ci ay saafara am nañ ci ay gàllaaj yu ñuy jox nit mu takk ko képp ko takk rab du la jege te it képp ko takk rab du la séen te it nañ nit ñi xam ne rab ñemewul gaynde wala jinne ñemewul gaynde ama lu ñuy liggéey ci deru gaynde incha ko takk rab kon bëri na ci ay xam-xam yoo xam ne xam nañ ko wax yàlla waaye nag yaatal mënuñ ko waaye képp ku jokkoo ñu dina ci dimbali incha allah waaw macha allah Cheikh am na solo trop xam naa ñu paree ci loolu tamit sëriñ bi bëggoon nañu waxtaanee mbiram noob ndaxte dafa nekk benn maanaa bi nga xam ne boroom xam-xam yu bëri dañ dañ ci dañ ci wutale daal daanaka ana yan leeral nga ñu mën a indil ci mbiram noob lan mooy njëriñal noob sëriñ bi. xal di wax ne moo tëj sëriñ su bëri wala moo jaaxal sëriñ su bëri waaye képp ku jokkoo ñun balaa ñetti fan sa aajo faju ci wàllu boobu du ma bu fekkee yaa ngi nekk ni moom ay coow du ci ku dem la balaa juróom-ñaari fan aajo koy liggéey nag jarul di wax waaye am na ci secret yoo xam ne suñ ko liggéey balaa juróom-ñaari fan jóoni jóoni la ci wàllu boobu sa aaj dina faj ci wàllu boobu incha allah incha allah. macha allah Cheikh Bokar Mané leeral yi am na solo trop daanaka xam naa émission bi mu ngi bëgg a jeex ndax tey daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf la tënk mais mënuñu leen seet si sans pour autant ñu waxtaanee actualité tolluwaay réew mi ñëpp xam nañ ni ay borom xam-xam ngeen ay kilifa ngeen mais avant tout ay porteur de voix ngeen ñu gis ni guddi ñu toll suñu dëkk bi dafa nekk dëkk bu jaxasoo dara yërëngalu ko rek muy mbiram politique coowal Ousmane Sonko ñenn ñu ngi naan dañ ko joxoñ dañ ko dañ ko dañ ko tooñ dañ ko tuumaal ñenn ñi ban jàngat nga am si si si tolluwaay boobu noonu. alhamdulilah man li may waxoon waxoon naa ko dinaa ko faral di waxaat bokk ma ci ñi gëm ne dafa def benn waaw bokk ma ñi ko gëm ñaar beneen bi ci tegu mooy cool yi sëñ bii dafa yéeme te ne nañ ñi doom doom na nit ñi moytu. ndax euh, gis nañ ci côté baatin ne buñ deful nànk ay bakkan mën na cee rot kon nañ def nànk bu baax parce que yoon xeex bii dafa dañ ko dañ ko yombalal ci zaahir mais xeex bi ne ci baatin moo gën a ëpp kon nag euh, nañ def ndànk tey li ma ci gis buñ deful ndànk ay bakkan dina ci jóge loolu moom ñaan ma yàlla te it maa ngi digal ne na ñëpp teey na ñëpp dal na ñëpp na ñëpp dal ci yëf yi te it euh, nañ bàyyi am wax ne mbir yoon la du ma ci wax waaye ngi ku ne am nga droit man gëm naa wala gëmuma waaye damaa bokk si ñi nga xam ne gëmul ne ne moom def na benn ñaar li ma gis si baatin nag buñ deful ndànk ay kilifa gu mag dina fi jóge ci wàllu baat dina fi jóge te xeex bi ci lay jóge kon loolu moom man fa laa yem ci wax ji du ma guddal fa laa yem te loolu yëpp ci mbiru baatin laa ko teg te baatin laa ko gisee du mbiru zaahir incha allah. macha allah Cheikh Bokar Mané ñu ngi lay jaajëfal daanaka comme ni ma ko waxee waxtu dafa nekk li nga xam ne daf la tënk xam naa du ñu def lu dul ñëw bàyyi la nga tàggatoo ak suñu mbokk internet yi Cheikh Bokar Mané lan ngay tàggatoo ana lan ngay dénk askan waaw di ñaan jàmm ci réew mi parce réew Euh, ay moom kenn du ko ñaan parce que ay mën ngaa xam tàmbali bi waaye xamoo fu muy yem fu muy mujj fu muy yem moom mënu ko natt kon di ñaan na ñëpp dal dal jàmm te ñaan réew mi yàlla def fi jàmm la ñuy ñaan réew mi yàlla na yàlla na fi yàlla fi jàmm waaye maa ngi wax ne di avertir ñëpp ne buñ deful nànk lu yéeme dina xew ci réew mi te loolu wax naa ko te dinañ teg seen bët incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu